ay bés bi ñu jagleel alam gi mu ngi woy fii si Ngor askan wi ñu bëree génn tey ci gaaw gi wuy ji woote seen meer bi leen sant ñu amal set setal bu mag ci gox bi yëf yamalewuñu ko ci biir dëkk bi rek fii si plage bu Ngor it amal nañ fi liggéey bu am solo jële fi lépp luy mbalit set setal bi ba si biir géej gi sax. bi ñuy door di tàmbali dafa dañu yàgg wax ne Ngor ville propre suñu yéene la ndax dëkk bi rafet na ba noppi waaye dañ ko war a continuer di setal fexe aussi nit ñi bañ ko bañ ko di bañ ko di tilimal te loolu mënuñu ko def ñu tànk ànd ci ak population yëpp tey dafa nekk point de départ bi euh, ñun au delà d'une journée on a pris une semaine de l'environnement ginnaaw panel bi ñuy wax ci euh, nettoyer quartier yi ak rue ak euh, île de Ngor également ak ak Li Ngor tàmbali ko di Yoff ak Wakam fas nañoo yéene it def lu ni mel. Maguette Ndiaye maire de Ngor moom ma invité euh, en tant que maire de Wakam ma ñëw kontaan si lool euh, te ñu ngi liggéey si benn intercommunalité boo xam ne lii base bi la daal euh, donc ñun Wakam Ngor Yoff dañu nekk ay ay ay doomu baay. yoo xam ne foog ñu liggéey ensemble pour suñu ñetti communes yi màggandoo. ambassade bu Rwanda fii si réewu Sénégal moom mooy ganu mairie bu Ngor. si bile semaine ñu jagleel environnement. donc on est très heureux. ak contentement la ñu am gannaaw bu ñu maire bu Ngor dugalee ci bilépp activité sàmm alam ji te ñoŋal suñu dëkkuwaay doon li nga xam ne ni soxal nañu lool ñun waa Rwanda ambassade bu Rwanda ci biir Ngor la nekk loolee tax ba mu am solo ngir ñu teewee bilépp activité. commune bu Ngor fas yéene wëyal yile bëccëgu set setal ngir nag gën a taaral dëkk bi gën a xëcc touriste yi. Ngor mu ngi sàkku rek ci kilifa yi jiite réewu Sénégal ñu jàppale leen ba ñu defaraat seen kanaal yeeg bépp tuyau bu fatt ngir rek ndoxi salte yi di jaar fa mu war a jaar.